Idaly ma lay nuyuwaat bu baax ndax gis nga bi ñu duggee pàq làmbaay euh, cofeel bi nga xamante ni waa làmbaay am nañ ko ci yow rawatina bawol bawol yi euh, bi nga duggee gis seede yi ñu lay seedeel wax ji li ñu lan lan la def ci yow. waaw sant yàlla rek julli ci yonent bi di sant sama wax ne ba euh, borom gaal gi àdduna amul solo. Mm. ndax lu tax àdduna amul solo. Mm. mooy bari na lu bari fii laa ko defee. te man damay jàpp ne taalibu Sëriñ Tuubaa laa boo xam ne lépp lu ma man àdduna su ma seen lépp am waaw xam naa nag suñu borom mi nu bind du ko def waaye loolu moo tax nag xam naa ñaane ak bëgg-bëgg gi yëpp ñu koy wane te man loolu wax li daal ci sama waajur laa ko doore rek ndax sama waajuru jigéen boo ko gisee daanaka nit ku ne mën naa jël ci moom temps waaw moo tax nag ci moom la doon moom baax ndax sama waajur góor sax benn suur damay toog ñu waxtaan tabaski ba la passé mu ne àdduna leen rek moo ko naqari ci daal mooy def lu baax su sama wàññi ko góor ci boobu loolu la wax ndax damay digaale nit sax mu def ndaka suur mën mais duma ko wan mais mbaax yàlla moo ma ko defal man loolu moom duma ko ndamal mais suñ borom moo ma dogal man su ma lu baax rek mm. damay war a ne man wàcc naa woon daal mm. Mm. kon mbaax a waral keroog ñu daje arène nationale nga ne ma demal place diw mu jox la ensemble bu rafet yére boo bëgg jëlal ma dem fa jël tubay jël yére mu doon lu rafet loo xamante ne vraiment damaa bëgg sax sa bis laa ko bëgg fas yéene sol pour parce kontaan gi nga xamante ne kontaan naa ko teraanga googu nga ma defal. non yéen war ngeen a moom lu ndax euh, tam ñun ñoo te itam wax dëgg yàlla da ngeen def lu rafet man dama lu ma jàppee doomu ndax nit ki Sëñ Abdoulaye Mbacke dafa wax ne doomu aadama buñ nee jëfi démbam. su ma jëfi tey nit la. te seen i jëf yéen waa Wassare dafa méngoog seen seen jëfi démb dafa méngoog seen jëfi tey ndax ñi bu ngeen di ànd te du dara moo leen boole loolu maam nga ànd suñu borom tax ndax damay wax ne yéen ñi nga xamee ne mooy yow Baye Djily ak Basiir borom gaal gi man Sëñ Tuubaa ma damay ñaan Sëñ Tuubaa mu dool noo dimbali ñun ñëpp ba kenn ku ne am xéwal boo xam ne maam nga du tee Basiiru am teraanga ma di ko defal teraanga mu di ma defal teraanga ndax àdduna nit ki boo ko noppee jëriñ rek pour mën a amatum jëriñ daal. Euh, tey ñu gis ni saison bi dafa tëj ñu jékki-jékki gisuñu idaali idaali jékki-jékki voyagé euh, mun naa mun nga leeral ñi nga xamante ne xamuñu woon ban dëkk nga demoon ak lan nga fa wuti woon. waaw demoon naa Turquie waroon na dem Allemagne hmm. mais bi yàlla dogalee ñu am foo xam ne maa dem ba ci yàgg si am lu ñu fa doon lijjanti rek suñu borom dogal mu gën a yomb Turquie hmm. ñu ne nañ wëññeekuwaat dëppaat hmm. jël élan boo xam ne incha allah am na loo xam ne

yaakaar nañ ne làmb da ci gis boobu te incha allah dañ ko dugal ci biir làmb ji ñoo xam ne tam ñu mm-hmm. euh, nga ñëwaat tey lëkkaloo ki nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye euh, ci ci ci jàkkaarloo bi nga xamante ni war nga koo def ci say champion yi nga xam ne tëgg nga leen ci ci at bi euh, jàkkaarloo boobu bi ngay koy waaj ak Fallou njaay nan ngeen ko toggee ak nan la demee waaw ah, Fallou Ndiaye day wax dëgg yàlla dafa def lu rek ndax su may def face à te man xaw ma woon ne le bi moo ko jël mm. ma dégg ñooy Fallou Ndiaye mi ngi publicité le 10 bi mm. ñu ne ma dégg tam mi publicité ku ne xam ne làmb dafa bëri ay ay détails mm. yu kenn xam ne ma moom itam mu am Moustapha ne waxtaan lee na ni lépp benn a moo na ko dàqal ci laa mujj nag ma ne ñu dajale lépp Fallou Ndiaye dama tournoi mën nañu ko fa def tirage woo ci vingt yi ma tëgg yëpp kenn ku ci nekk ñëw euh, kenn ku ne ñoo xam ne maanaam kenn leen la may nga ñëw ñu def ko signature boo xam ne bu service daal def tirage bi ñu daje ñoo xam ne ñoo daje daal hmm. Hmm. mu nekk loo xamante ne amateur yi ñu bari ñu ngi koy xaar mais sa prochaine euh, saison wala boog sa journée kañ lay doon waaw ñi ngi bëgg daal en tout ngi waxtaan ñu ngi waxtaan ak staff bi xam naa lu yàggul dara incha allah dinañ génne ñu ngi première journée bi nga xamee ne moom la bëgg a tëgg ñu wane ko ne maanaam journée bi mooy ne suñu ñu gën mu bëgg a àgg na àgg fa wax a ñaanal nañ ma gën a yokk ñaanal rawatina bàyyi seen fay ndax nu ma mel ginnaaw suñu borom ñoom ñoo tax daal Euh, mu nekk loo xamante ni fi mu toll nii amateuru làmb yëpp ñu ngi koy waaj idaal yi ñu bëree bëri bëri ñu ngi koy waaj mais dafa mel ni bëri na ci loo xamante yaa ngi koy toggaat wala da ngay da ngay da ngay da ngay continuer ñi nga jot tëgg nii ba tournoi bi jeex wala da ngay toftal yeneen mbër. non non tournoi bu ñu ko tirasee chaque kii am na grand combat. tournoi bi chaque kii am na grand combat am na combat yoo xam ne ñu ngi koy bëgg. Hmm. yàlla na yàlla suñu borom dogal mu sotti. Hmm. bu ñu ko defee nga xam ne euh, bi. am na grand combat ba pare moom Mbaye Tine daf daan deuxième sortie am na beneen grand combat boo xam ne moom la ñu a wutaat ba troisième bi hmm. ma lay jaajëfal bu baax xam naa ni eh, sponsor yi nga xamante ni topp nañ la wala ñi nga xamante ni ñu ngi lay jàppale ci jour bi eh, ñan la. waaw am nañ wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax di wax ne gars yi moom ñu ngi ciy jàpp baax dina gunge ndax nit ki moom amul lu dul maame eh, ko tey mu tëgg làmb nga ñëw dooleel ko di ko gunge ci journée. Hmm. waaw am nañ am sponsor boo xam ne daal wax dëgg yàlla yàlla suñu borom dimbali ñu def nañ li nga xam ne moom la war a def lépp ñun ak moom waaw ñu ngi wax nag ñu gën ñu cee ñaanal daal xam ne lu si ciy bëgg sponsor bi moo nekk nii mooy ñëw bientôt incha allah liggéey ñi ngi production mm-hmm. ndeysaan gis nga mu nekk loo xamante ne vraiment euh, idaal yi mu ngi koy mu ngi koy def euh, nekk ci di ci di ci di ci gërëm bu baax a baax a baax ñu nag daa mel ni waa wasaar groupe la euh, li nga xamante ni ñu ngi koy yëngu ci wàll immeuble ak ak ak wàllu mbay ak ndox ak yu mel noonu ak oto yu mel noonu mu doon loo xamante xam naa ni ñi koy tëwoo yëpp bari na mais de dafa mel ni am na ci place bi ñu ñëw bërëb bi bërëbu kan la. waaw fii nii ñëw ni ñu ngi ñëw place suñu ji Fall nekk Paco Lambaye nekk nit ku baax. Hmm. waa di jàppale SONES bi di jàppale ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci pàkk bi. Hmm. ñu bari ci place am lañ nekk dafa boo bay di dundee seen ñaq. Hmm. mu leen jàppale bu baax a baax nag tey moom lañ seet si ngir surna bi nga xam ne Fallou Ndiaye tudd na ko Bawol Bawol yëpp. ñu ñëw itam wane ci la Bawol Bawol yi pour ñëw suba dooleel Fallou Ndiaye jërëjëf kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi sant rek di wax ne Baye Djily Mbacke daal maa ngi koy sant bu baax borom léegi léegi ak Cheikh Ndigal Sène suñu Abdou Karim Mbacke di ñaanal sama ma lay bëgg bu baax yow itam di bëgg waa wasaare ne maa ngi bëgg daal ci barke yonent bi nii nga xamee ne maa ngi dégg wal faj yi yeneen télé yi téléphone yëpp ñu dégg ko noonu ci barke Sëñ Tuubaa kontaan nañ bu baax mbokk kon ci kanam tuuti rek incha allah rabbi ñu ñëwaat ci beneen xew-xew làmb